نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي internet san limite TV merci de nous suivre euh, ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal bu baax a baax euh, ci teewlu bi ngeen ñuy teewlu euh, ñu amaat mbégte ak contentement jàkkaarloo ak suñu yaay joo xamante ni yaakaar naa kenn dootu ko présenté ci li nga xamante ni ci la yëngu muy wàllum théâtre kooku nag bu ma ko tuddee moom mooy kan Mama Rouba Seye ñëpp ràññee ko ci série bi nga xamante ni moom moo di mbetteel mu joué ci rôle bu am solo yaakaar naa di tooyal xolu ñëpp waaye yaakaar naa ñëpp naw ko ci bëgg ko ci fonk ko ci lool ñu ñëw fii fekk ko fi nga xamante ni moom moo di kër Mama Thiaba Samb ci dese bi nga xamante ni yaakaar naa fi moom moo tax ñëpp daati fii daje dañuy koy daati nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog internet yi nga xamante ni ñoo ngi koy seetaan balaa ñuy dugg ci témoignage yi ak yeneen waxtaan yi maman ñu lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax a baax pour la première fois ci Sans Limites TV. maa ngeen di fay bu baax a baax euh, di wax rek naan euh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, ci yàlla la ñuy te ci moom la ñuy dellu. ci yàlla lañ jóge ci yàlla la ñuy déglu mama ginnaaw bi ñu la nuyoo dalal la bu baax a baax ñu fekk la fi nga xamante ni moom mooy dëjaaw mama Thiaba Samb ah, ah, ñu gis li nga xamante ni moom mooy say ronkoñ di dal ci sa dënn mu mel ni rek am na foo xamante ni féete woon na la fa lool ah, sa diggante ak moom lan la. waaw Fama Fama sama mag la woon sama xarit la woon mais aussi sama yaay la woon parce que wax dëgg yàlla euh, dañu partagé lu bari dañu partagé lu bari parce que dañu yàgg xamante. mbetteel boole wuñu euh, donc looloo waral peut-être ma am yëg-yëg bi nii looloo waral ma am yëg-yëg bii parce que Fama nit koo xam ne nit ku exceptionnel la woon nit ku baaxoon nit ku fonk doomu aadama nit ku nite nit ku nite nit ku nit ku baax daal wax dëgg yàlla nit ku baaxoon torop torop torop nit ku mënoon conseiller nit nit ku mën a xërtal nit ci lu baax donc euh, xam moom fu ko waay natt rek euh, weesu woon na foofu wallaahi. macha allah tey lan nga yëkk bi nga ñëwee fi nga xamante ni moom moo di ci saraxu ñetti fan bi maanaam nga fekk fi sa naataango yëpp ñi nga xamante ni ñëpp ñoom nga bokkal aar bi ñëpp ya daanaka benn seede bi la booy wax ñu ni la mama caba nitu nitu ñëpp la woon maanaam da daan boole di defar musul bëgg ñaar ñu jote wala xiiroo wala ŋaayoo ana lan nga ñuy wax ci loolu. faama euh, njabalu guddi ku njëkk ku mësaan njëkk ci moom defe ne yow kese la fi nekkal donc ku ci gàtt xel sax ba mel ni Rouba Seye da ngay naan man rek la nekkoon sama nit ah, ndax baaxam ndax yaatuwaayam ndax mën a wax nit lu baax euh, mën a conseiller nit mën a xërta nit ci lu baax Fama musta fekkee lu ñaaw du ko fekkee sax parce que lu ñaaw bu naree jóg sax mu taxaw taxaw leen déet bu leen defee nii def leen nii def leen nangam da koy ruus ba euh, léeg bu teewee sax mbir am euh, loo jàppoon da koy bàyyi yàlla mayoon na ko loolu ak noo mënti toll nag su ma saan wax ak yow ñaan la nangul ko rek nga mën mënoo mënoo def leneen ndax fam lay teg ndax li olof naan nit ku nekk euh, soo naan xaw ma nu koy def nam la def moo tax donc dañu koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax yàlla xare ko aljana yan moment nga partagé ak moom yoo xamante ni doo ko mës a fàtte ci sa àdduna ah, ginnaaw bi nga xamante ni bokk ngeen série bari na bari na bari na faama la mbetteel boolewuñu donc li ma mën a ak moom Euh, ci ay moment yu neex moment yu neex moment yu yu yu metti mu ñuy defal moment de euh, léeg-léeg euh, yëf yi jaxasoo nga bëgg wane sa bopp sax mu téye la ah bari na mag la woon moo xam ne daal àndoon ak moom daf ñu daan neex ah surtout man ànd ak moom daf may neex parce que nit koo xam ne heure boo bëggee jàdd mu wàññi la ne la du noonu nii la di la conseiller ci sa vie familial di la di la conseiller sa diggante nit ak nit wala mu yëg dara mu ñaaw sax mu woo la fu kenn nekkul ne la ah bu ëllëgee bul defee nii bul defee nii wala ne la ah nangam ak nangam am na xam naa ne yëg nga ko waaye ngir yàlla rek bu ci réagir bul tontu bul nangam bul nangam donc loolu nit kase moo ko man nit kase moo ko man Euh, tey nga joué Mbetteel rôle bu rôle bu am solo rôle exemplaire boo xamante ni ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dañu naw ñu Rouba Seye képp ku koy seetaan bëgg nga am yaay bu mel ni Rouba Seye képp ku koy seetaan bëgg nga am soxna su mel ni Rouba Seye képp ku koy seetaan bëgg nga am ah, mag ju mel ni Rouba Seye euh, rôle bi Rouba ñëpp ni da nga ko réussir à cent pour cent macha allah naka nga def ba réussir rôle waaw dañuy sant yàlla rek bu baax. xam nga nag euh, picc bu naaw xaw ma picc bu juddoo ci dàkk ci tàgg la xaw ma bu naawul day jaaxal ay mbokkam man ku xam sama yaay euh, li may wax toujours mooy sama idole nit la koo xam ne dafa muñoon trop ci biir néegu sëyam donc euh, yooyu rek cest à ci yooyu ngay màgg xam ne toujours dañ lay jox exemple di la wax ne la àddina moom lu dul sëy sëye ko gën lu dul muñ jigéen da ngay muñ donc muñ muñ rek la ñu am nous sommes obligés euh, te li ma joué nii euh, réussir naa ko naam waaye li ëppoon solo ci jeu bi mooy ñi nga xam ne ñoo ma jox role bi ak suñu réalisateur macha allah tamit euh, def ci ay jéego yu am solo léeg nga wax mu ne la noonoo non changé defal nii defal nii defal nii kon mérit bi yëpp ñoom lay ñoom ci ñoom lay delluwaat ah képp ku nekkoon mbetteel rek mérit bi mi ngi ci yow parce booy jouer toujours. Euh, donte lu sew la sax nit mi la koy dolli ah donc kenn ku ci nekk rek boo réussir sa rôle ba ñëpp di la ko waxal dañ euh, ko partager ñun ñëpp xam ne ñun ñëpp la. mbetteel bi nga xamante ni am nga ko sa biir foyer maanaam tey am benn jëkkër mu am benn melokaan am ñaari doom yoo xamante ni tey ku ci nekk jikkoom ak jikko moroomam bokkul mais ruba Seye da doon réussir à réunir ñetti jikko yooyu noonu yëpp ah fexe ba tout lépp nekk benn maanaam muy naqar ak bànneex yëpp da ko daan toog di ko muñ ci biir kër gi mu nekk rôle boo xamante ni yaakaar naa comme ni ma ko waxee sànq rek sama biir wax ñëpp naw nañ li ci ñëpp respecté nañ li mais loolu est-ce que tey bu nit di dund ci biir këram est-ce que du mujjee euh, maanaam dem ba affaire bi ëpp ko doole soit mu dof wala mu bëgg xaru wala mu bëgg a perdre goût à la vie yeneen ak yeneen di ko ci fekk si. non non parce que jigéen muñ la lu ëpp loolu. jigéen euh, réussir na lu ëpp loolu buñ nee jigéen école la euh, dafa am lu tax buñ nee jigéen magasin la dafa am lu tax donc euh, xolu muñukaayu jigéen dépassé na foofu dépassé na foofu parce que toujours nga gis jigéen mu am jëkkër am ay doom. doom yi kenn ci ñoom du ak sa moroom ji ko te teewul ñoom ñëpp di nga fexe ba teg ba teg leen dans de trois chemins donc loolu moom yàlla may na ko jigéen parce que toujours euh, liñ naan góor du yar jigéen mooy yar loolu wax ju dëggu la te booy yar c'est parce que dafa am lu tax euh, ay jikko yoo xam ne day dajaloo ci doomu aadama yoo xam ne mënoo ko situer mënoo ko préparer mënoo ko xaar toujours ay surprise lay am Euh, da ngay sëy am sa njaboot mais léeg-léeg sa kenn ci say doom def loo xam ne da ngay wét sa biir néeg jooy ba pare génn door koo faj parce que da nga est-ce que man maa jur ki def lii tellement ko day euh, day ute ak sa yeneen doom jikko wala day ute ak yow jikko wala day ute euh, ak li nga def ci moom valeur yi nga def ci moom moo tax toujours yaay am mbetteel ci biir néegam Euh, ci njabootam ci jëkkëram ci keneen ak keneen mais du tee toujours rek da koy surmonter li ñuy ñaan kay mooy euh, képp ku sonn ci sëy rek yàlla na nga jariñu mais tey lan moo tax euh, mbiru wujje maanaam wujje ci biir kër tout le temps moom mooy indi problème ci famille. bon waaw parce que nag li koy indi lu bari mooy ñun jigéen ñi rek la ñun jigéen ñi rek la parce que kenn ku ci nekk rek boo jàppee ne njaboot gi leen yàlla jox seen jëkkër jur ko parce que man gis naa ko doomu wujjam yóbbu màkk gis naa ko doomu wujjam tabax kër ba mu egg ñëw jël wujju yaayam dugal ci biir kër gi bari na fi donc nañ leen rafetal euh, te xam ne wujje du dara yàlla moom ala kuli aal li mu namm ci doomu aadama kenn mënul échape à son destin donc foog ñu gëm ko jiital iman ci suñu biir jiital ne lépp suñu boroom la li jara ñaan rek mooy gudd fan ak fekkee ndax ki tax ngeen di rayante it euh, bu sañoon jàmm rek lay am biir këram bu ngeen ko amee mooy li gën ndax li indi tey nga takk jabar utal kii fu mu nekk utal kële fu mu nekk doomu baay yi du ñu miinante du ñu euh, am yenn du ñu bokk dara li ko indi yëpp mooy parce que yaa ngi éviter boo ko defee jigéen nangam jigéen nangam jigéen nangam te wujje ci biir kër mooy indi wujje doom yi. ba may ñëw ak yow ci rôle ah rôle bi nga xamante ni joué nga ko mbetteel di joué ay rôle yu role yu rôle yu bari gis nañ ci li nga xamante ne moom moo di tey nga joué ko ci mais tey kenn ñu naw la ci euh, rôle boobu nga xamante ni joué nga ko ci maanaam critiqué wuñ la ci xasuñu la ci saaga wuñ la ci waxuñu la ci loo xamante ni lu naqari la wala commentaire boo xamante ni tey daf lay dépassé mais tey beneen xale bu ko joué woon na à ta place tey amaana day dégg leneen ci mbedd mi day dégg leneen ci commentaire yi ban jàngat nga am ci loolu maanaam tey rôle prostitution tey joué nga ko ci mbetteel mais tey jii nii amoo ci lu la naqari parce que déggoo ci lu la naqari waxuñu la ci lu ñaaw amoo ci benn commentaire boo xamante ni négatif la mais tey beneen xale bu ko joxoon pour mu jouer rôle bi automatiquement commentaire yëpp négatif lay doon wala tey jii ñu xasee ko ko wala tey koñ ba mu dëkk sax dañ ko koy xoolee. non non duñ ko wax dara xam nga en fait c'est que xam nga rôle prostitution <laughs> prostituée la ñuy wax en prostitution rôle yooyu mën nga ko jouer te du vulgaire te du ñaaw xam nga rôle. mbubb la rek booy sol c'est que bu jeu bu bi jotee joué ko nga bañ a heurter kenn xam nga en général léeg li tax ñi gars yi di critiquer yenn rôle yi mooy da nga koy joué di heurter nit ki ah alors que mën nga ko joué euh, li ñu bëgg nga def ko di nga ko def te du ñaaw du vulgaire ku nekk di nga ko mën a seetaan euh, muy kilifa bi muy sa doom muy sa sët ñëpp dañ koy seetaan te doo leen heurter mais en général léeg-léeg gis ko joué rôle. Euh, mais dafay euh, dafay xaw a dafay xaw a doy waar alors que nit dina ko jouer te kenn du ko critiquer keneen jouer ko ñu critiquer ko mais rôle moom rôle rek la tudd rôle moom rôle la tudd waaye. rôle rek la tudd tey nan nga gisee série yi nan nga gisee production yi en général ah, parce que tey bari na ay critique ah, bu njëkk ba loolu amu ci woon nit ñi dañ daan jouer série théâtre ñu teg ko ñëpp seetaan mu jeex mu jeex mais léegi daanaka série buy commencé buzz lay commencé soit dinañ ci gis séquence yoo xamante ni comme ni nga ko waxee sànq say biir wax day heurter ñu bari ba nga xamante ni après day nekk polémique fii nii ci Sénégal. bon xanaa d'abord di leen féliciter di leen encourager parce que liggéey bi yomb ah c'est boo ci nekkee rek ci ngay xam ne euh, yombul euh, juste que ñi nga xam ne ñooy scénariste yi li may wax toujours ak ñi nga xam ne ñooy réalisateur bi ñu veiller à ce li ñuy wan public bi li ñuy wan population bi mu nekk lu lu lu lu méngoo ak li nga xam ne mooy suñu euh, cosaan ak suñu aada parce que nag ak lu mënti xew tubaab bi buy jouer du bàyyi ci ñun xel day jouer day jouer li nga xam ne mooy culture am li ko maanaam li ko dëkkam may rek lay def il faut pas que ñu am complexe ci li nga xam ne ñun moom lañu d'abord nous sommes des Africains ñaar sénégalais et que dañu am dañu am public boo xamante ne nii ñoo ñuy seetaan ñooy bàyyi ci ñun xel ah te ñooñu ñun ay exemple lañ ci ñoom surtout xale yu ndaw yi nga xam ne ñun ñooy seeni idole da ngay romb ay xale yu ndaw yu bari dogaale la buñ la gisee nga sol dara man yaa am na benn xale boo xam ne six ans la am xale bi yaay ji moo ma woo mu ne ma man dama la fan dama la bëgg mais sama doom moo la gën a bëgg ba ci tabaski bii sax génneel ma ne ma séquence nangam li nga sol la ne naa ko ñawal est-ce que yaa ngi yaa ngi comprendre loolu donc mu nekk lu doy waar loo xamante ne tey xale boobu bu fekkoon li ma sol euh, dafa dafa méngoowul ak moom la mu war a sol même bu ko yaayam ñawalul bu demee ba mature loolu dafay des ci boppam donc daf koy bëgg donc nañu bàyyi xel ci suñu éducation xale yi parce que xale yi tey ñooy nekk magi ëllëg te ñooy yori réewi ëllëg te am na nu ñuy mel suñu suñu jeunesse suñu jeunesse bi suñu leen yàqee rek bu ñu màggee ban Sénégal lañuy ñuy amee ëllëg il faut ñu ñu ñu xalaat ci bu baax a baax waaw est-ce que Rouba tey mës na dund ci aar bi loo xamante ni ah, ah, comme ni ñu koy faral di waxee léegi maanaam am problème ak producteur wala réalisateur wala am problème mu cachet comme jamono ji ah, ni mu nekkee en vogue ñuy gis acteurs yu bëri yoo xamante ni lii tax ñuy bàyyi ci yenn production yi loolu lay doon est-ce que Rouba Seye mi ngi dund lool ci wàllum théâtre non yàlla suturaal na ma du sama ngóora nag du sama ngóora mais yàlla suturaal na ma euh, dalaguma parce que man li may wax toujours rek euh, len doomu aadama muy alal muy muy ak lu mu mënti doona ah, jaraluma jaraluma yenn yi non non juste que dañuy waxaale ci cachet ñu liggéey ko bu àpp ba jotee soo ma fayee baax na ma jël soo ma fayul nag am naa mat gu toll ni toog sama kër parce que à coup mooy que di nga ñëw di nga ne ma nàngam ak nangam ak nangam mais du ma werante ak nit wala jote ak nit lu àddina di dégg ñu ne lan moo leen boole ñu ne xaalis loo xam ne tey moom ma ko lekk Euh, xamul ndax dina ko jigam déet xamul ndax dina fekkee am déet yàlla rek a xam ndax ma ngi koy lekk est-ce que la muy lekk dina jeex yàlla rek moo xam kiy lekk ñàkku doomu aadama xëy na danga xamul li ci ñàkku doomu aadama te mu lew xëy na da ko xamul loolu rek laay laa laa ciy wax. ban appréciation la say waajur am sa papa ak sa yaay ci rôle bi nga xamante ni yaa ngi koy joué. Euh, àddina fekkee na tuut as tuut daal laay wax sax ci sama liggéey mu mësaan mu mu ko daan apprécier lu bari fierté la ko la ko defoon parce que da daan toog ay xaritam di ko woo naan ko mais sa doom bi nangam nangam nangam ñu ngi koy seetaan donc suñ ko ko mësaan wax dafay dafay ree dafay kontaan euh, yàlla dogal fekkewul lu bari yàlla ko yàlla xare aljana donc sama waajur bu jigéen moo fi des yàlla yàlla guddal fanaam donc moom aussi wax dëgg yàlla moo am ci apprécié appréciation bu bu spécial parce que heure bu ma joué ba mu daw ci télé bi après ci la may woo parce que moom comme mënul liir duma ko jox scénario wala euh, samay dialogue mais su paree rek danaan ah nangam bi nga joué de nangam la nangam la daf may surveiller de près defeel nii defee nii bu ëllëgee del def lii ah lii de bu ko liggéeyati lii de moom baaxul lii de nangam donc euh, sama famille aussi macha allah ñu am fierté bu baax a baax ci man euh, ñuy samay xarit bu baax a baax ba lépp lu ma mën a liggéey rek damay bàyyi ci ñoom xel bu baax parce que aw ma lu leen ëpp ci àddina li may wax toujours mooy boo xasee ba siiw ci famille yow yaay yor drapeau bi magu diw nga rakku diw nga yaayu diw nga doomu diw nga bàjjenu diw nga donc loolu dañ ci war a bàyyi xel parce que à nit mën ay nit ñi mën nañ ci xeeb sa famille à travers toi nit ñi mën nañ ci respecter sa famille donc euh, loolu moo tax lu bari lu may liggéey damay bàyyi ci sama famille xel waaye. ñu ngi lay jaajëfal maman bu baax a baax sa kàddu gu mujj rek pour internet yi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan nekk say fans. waa mooy di leen remercier bu baax euh, di leen ñaanal yàlla man aussi euh, may ñaanal sama bopp yàlla may ma gudd fan ak wér. ma yàgg di leen bégal parce que nag nit amul lu ay fansam te tey lépp népp lépp nu ma mel wala lu ma def rek yéen la ngeen ci béggee euh, tey fu ma egsi yéen la maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax a baax a baax di leen gërëm aussi euh, di leen euh, wax rek ne téye leen ñoo ngi ci di ñaanal faama bu baax a baax a baax yàlla xara ko aljana bu baax a baax baax a baax yàlla na rëcc lu mu doon yàggee ci kaw suuf ci barke Seydina Mouhamed aley salaam jërë ngeen jëf.